boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk ba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek dab bànneexu client yi digital lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan soxla li ci gën a neex ti mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digital Store améliorez votre quotidien téléphone 33 823 77 87 TQG ànd ak Colorado dellu si na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax Touflex ak koloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seep ndox ñu defare ko ci ay anam yu mucc ayib ñu saytu ko ci ay laboratoire ba mu wóor ci qualité ñu doo koy teg ci marché bi yow mi nga xamante ne da ngay tabax dale bu pare utiliser Coloflex su fekkee nga karale itam bu pare jëlal tu Touflex ndax ay peinture d'étanchéité la yu baax a baax yu wóor te garanti toogaay amatul bu leen di xaar ba nawet bi door ngeen dog di jóg peinture Coloflex Artouflex bu Colorado moo xam nga dër sa terrasse bu pare wala nga carrelé terrasse bu ñu faral di dox ci kawam la wala bu ñuy tëbaka dal bu mu ci mënti doon bu ngeen ñëwee TQG dinañu leen conseiller xelal leen ba seen terrasse dootul senn dal buy seeb ndox dara wóoru ci moo tax TQG ak Colorado ñu indi leen Touflex ak Coloflex des peintures d'étanchéité yu wóor wóor yooyu peinture disponible nañu ci quincaillerie TQG yëpp ak fépp ci Sénégal TQG ñu ngi cité Kër Damel extension rond-point 26 Parcelles Assainies wala Mbour route nationale ci wetu croisement Saly TQG Touba 28 ci wetu grande mosquée Kër Massar am na TQG ci rond-point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 suñu borom mi ngi wax ci alxuraan ne ñi nga xam ne dañoo jànkoonte ak seen bakkan ba fan yam ca wuxuma waaye ñi nga xam ne dañoo jànkoonte seen bakkan ba jàggi ko róor képp noppi nañoo réer ndax saa su nekk maa leen di wommat leen wan fa ñuy jaar yal nañu yàlla boole ñu ñëpp xam nañ ne nit ki ci ak dundam gépp bëri la bu dul jeex day songu li daan ko leneen ne ci kanamam mu bëgg koo daanaat léeg-léeg loola daan ko jugaat songoowaat ak moom am na ca nag kook ab noon la bu fës bu muy jàkkaar lool léeg-léeg noon ba yor ay yoxoy kese léeg-léeg mu yor gànnaay waaye léeg-léeg it mu am ñum war a songool ñoo xam ne du leen mas a teg bët te saa su ne ci moom la ñuy xëy kooku nga xam ne nag songoo ak moom taxut mu teg ku bët moo gën a mettee moo gën a metti fuuf bu dee bëri la tudd bu dee xeex la tudd te kooku kenn jiituwu ci seytaane te seytaane fi muy jaar day jaar ci bakkanum nit ki fexe ba nit ki topp bakkanam yàlla nañ moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne noon bi gën a mag ci ab noon mooy xam bi nit ki jàkkaarloo di ko gis mu wog ay yoxoom mu woggi yoxoom ak noon bi nga xam ne tegu ko bët ba mën a songook moom ba ca gën a yéeme mooy noonu bakkan mooy bakkan ci nit kon noonu bi gën a mag ci nit ki rawatina jullit bi mooy bakkanam ndax bakkanam songu gi muy songu nit ki mooy daf koy wutloo rek bis bisa set saa bu xëyee wuti ak nu mu ko mën a amee baax na doonte na koy wuute ak fa koy wuute ji yàlla gërëmu fa fenn yonent bi gërëmu fa fenn yàlla ñu ci yàlla musal moo tax ku topp bakkanam bakkanam di ko wommat fii fii dong la ko jëmee waaye ku fas yéene jànkoonteeg ak bakkanam nag nu muy def day fab day fexe ba fab am nos nos mooy loolu ñuy def ci bakkanub gëléem ab jaaro bënn bakkan ba def ca buum foo ko jëmee mu jëm fa bu dee bakkanum nit nag di dox digganteem ak jaamu yàlla ak pas-pas bu dëgër mooy nit ki na fa bakkanam wombate ko nosub gëm yàlla lu mu ko mën a tegal rek mu indi gëm yàlla teg ci paj bi waaye laabe ko laab am ñu ko wax nga mooy li nga xam ne dañ koy takkal fas wala ku mel ni fas ci gémmiñam mu doon yaari wuum bu dem ca gannaaw bu bëggee jëm rajoor mu xëcc rajoor bu bëggee dem càmmoñ mu moom bakkanam na ko defee laabi taqwallah leen lu ci nekk mu xool ana lu ci yàlla digle ak lu mu ci tere su boobaa lu mu song daan ko te ku ko song daanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ca xajam gu siiw googu nga xam ne lu mu ca bëggoon a wax ca at yi ko jiitu waxu ko woon nit jotuñ ko woon a dégg ndax daje guñu woon noo ne ñu dajee bokk ca lam ca wax ne tey ngeen a ñëw ma wan leen dëgg dëgg jullit ni muy mel ñu ne ko ax ah, kay ñëpp ne kott di déglu mu ne jullit dëgg mooy koo xam ne kii booy dénk sa alal dañ ko ca wóolu moo xam nga xam ko moo ko xam bu bu bu bokkee yow julli sëlmal rek nga wóolu ko bëgg ko dénk sa alal kon bokk ku ne war naa fexe ba boo tasee ñu julli sëlmal sax mu wóolu la donte xamagul noo tudd xamagoo foo foo waaye it nee na jullit moom tur yi bari na bari nañu ko tuddoo ki ma jëkk wax mooy mu'min ku gëm yàlla waaye nag bu koy jëfee moo tax mu tudd ab jullit nee na jullit nag moom ni ñu koy xame mooy koo xam ne nit ñi mënuñu ne moo ma ne nangam cib safaan ku ne mën nga koo seereel lu nekk ba mu des musuma dégg mu yëkkati kàddu jëmee ko ci kenn ca du kàddu gu yiw waaye mosu gis it mu yëkkati ay loxoom ay yoxoom di ca jëf loo xam ne day yàqal jullit bi ëllëg lu yaatoo yaatoo waaye bi may fàttalante nii nag mooy jihaadu nafs nee na jihaadu nafs nag li ko tudd dëgg dëgg ku ko bëgg a def na teg tànkam ci topp ndigali suñu borom yi muy li gën a gaaw waaye nag gàddaay ga nit ñi daan def di ko fekk nee na jërëtu ko léegi gàddaay yomb na ñu ne ko xanaa léegi la mu ne gàddaay gi nga xam ne fu waa jëm ne ko jëkk fa jëme mooy na fexe ba bu nekkoon ci safaan rek na gàddaay safaan ba bañ caa delloo ci mukk su boobaa bu ñuy lim muhaajir yi mën nañu ko caa boole kon ki jóg di def jihaadu nafs mboolem yu metti ci nit ñi day neex ci moom yi metti yépp day neex ci moom yi metti yépp nag neexuta benn benn waaye ku ne mën na caa xam benn boo xam ne bii bëggul mu dal ko bëggu caa jaar ci coobareem rek su bëggee def jihaadu nafs day fexe ba teg ko boppam ci misaal loo xam ne ñépp dañoo wax ne daa neex ci gémmiñ lool ku ne di ko wër moom mu seet ku bés xam ne lii neex na ci gémmiñ bu bëggee def jihaadu nafs da koy xañ boppam loolu te dagoon na ci moom am na ku ko def koo xam ne yi gën a neex nit di ko jëfandikoo muy boo bëggee waaxu di sànni sa yoxo biir yi dem ko dik mel ni kuy joow dawu ko def ndax loolu daa neex ci aw yaram waaye dawut xool mbirit ne ko jàkk bu ne ca tarafet benn yoon lu mu neex neex xool dutu ko xool xañ na ko boppam lu mu gëmmentu gëmmentu day nekk ca la muy nekk ba nelaw dikk mu ne mu ne ca gamm xañ boppam tëdd waxuma laa nag dem toog di ay nelaw waaye day ne ca la muy nekk ba nelaw dikk moo ñun la yàlla bindandoo waaye bu ko dalee it bu nee tëreetit day tuub lu dul jeex delluwaat ca lam doon def kon kii def jaadu nafs day xañ boppam mboolem ñu neex yépp te nit ñi di ko wër aaya bi ma tudd léegi wallazina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maal muxsinin sayyidina abdullah ibn abbas nee na wallazina jaahadu ñi nga xam ne jànkonte nañu lu nekk fii taatina topp yàlla lanahdiyannahum danañ leen wan joxañ leen tegal leen seen loxo subula sawabina lépp lu yàlla ne ku ko def am ca bu yool day yomb ci moom lool ndax yàlla koy wan ndax daa wan gannaaw bakkanam bakkanam jiitu mu topp ca waaye moo jiitu moom bakkanam di ko jéem a galgal ak di xool tànkam yu tànk jihaadu nafs nag bokk yi bu ma ko tënkee mu gën a neex xam yaar rek la benn ba mooy ku la gën a farlu ci jaamu yàlla sooy wut mu ja ku kuy kuy jihaadu nafs bay ba nga bay ba nga topp ca moom waaye koo xam ne mosoo koo dégg fenn ci lu dul jaamu yàlla koo mos dégg fu jaamu yàlla rek nga ko mos a dégg kooka moo def jihaadu nafs dëgg waaye koo xam lu néew néew man si ne buru woon ak nàngam ji te du la yàlla santaane bay boo nga bàyyi ko fa te dem du ko kon jihaadu nafs weesuwut bàyyi li yàlla tere lépp nekk ci yàlla digle lépp nekk ci yàlla digle lépp nag daa diis gan ci bakkan moom la suñu borom di wax ne benn ca wastainu bi sabri was salaati wa innaha la thaqilatun wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin wastainu bi sabri wasalaati wa innaha la kabiratun illa ala na ngeen jël muñ gi nga xam ne mooy am ba noppi nit door a mën a def jihaad ju mën a doon rawatina jihaadu nafs na ngeen fab muñ def ko seen wéttal ak jaamu yàlla daan na jaamu yàlla nag lu diis gan la illa ala alxaashiin kon boog jullit dëgg bu bëggee def jihaadu nafs gànnaayu bu jëkk ba muy yor mooy gànnaayu muñ di jëlale di jéggale gis loo xam ne xool na ko ba xam ko mu randamtal sandamtal ab gisam romb ko jàll sëriñ bi mas naa romb ci biir barbar ba daan doxe bu guddee koo xam ne daa taxaw di tuur ndox ba mu xaddami ko mu xam ne diwa mu dem néew ko fii kenn fi tuur ndox néew ko li ngay def nag daa bàyyi ba mu fàtt ba mel ne war na koo fàtte muy waxtaan ci biir waxtaan ba ne tuur ndox ci mbedd rafetut loo yàkkante yàkkante demal ci kër dama soxla walla wa sakkantuma nag taxaw di tuur ndox kooka ba nim faatoo lim gëm mooy lu waay def sëriñ bi gis na la wax na dëgg da koo gis waaye jànkoonteeg bakkanam ci bañ wane genn benn sañ-sañ ci digganteem ak moom tax na mu gëm mu dem yar na ko yaraale ñeneen te laaxam laalu ko kon boog muñ nangoo muñ lu bare ku muñ nag muñ ku muñ jànkoonteeg bakkanam bànneexam ak seytaane ba not leen fu taxaw kenn du mën a yëngal lenn ci moom ndax yàllaa koy téel boppam waaye koo xam ne nag lu néew néew ma ngay dang daay léeg-léeg mu daaneel bakkanam léeg-léeg bakkanam daaneel ko day mujj doon jaamu bakkanam ndax bakkan mu daan duuti jóg bànneex kum daaneel dutu jóg seytaane mu daan dutu jóg ki nga xam ne da doon jaamu yàlla ba soli lool bëgg dimbali nit ñi ak ku xëram tax mu ne yàlla dama bëgg nga wan ma seytaane ma faagaagal ko ndax ñëpp nopp te xamutoon ne seytaane yàlla nee na ko woon innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum mu jox koy màndarga mu gis ko ne ko yow laa doon wër sonal nga nit ñi sonal nga anbiya ak mursaloon ak saalixoon yaak awliya yépp ba ñee juum nañ yàqule ñii njuumte lañ dëkke ba faatu yëkkati ko ba daaneel ko seytaan yi jéggalu ko wax ba génn ca songaat ko ca beneen bés seytaane daaneel ko génne ngànnaay lu raw la mu yoroon ba mu ne ko yow sax jëraloo ma rey koo xam ne ñeent fukki at ko des ci àdduna jëraloo ma rey mu ne ñeent fukki at man maa ngi doon xaw a kër-kër ji ma nekk woon ak jihaadu nafs bi ma doon def lu sama bakkan bëgg ma xañ ko ko ndeket des naa ñeent fukki at damay def lu ma neex dab gaay yi ci ñaar fukki at yii ñaar fukki at yi ma tuub ko ndax yàlla woon yàlla nee na woon euh, yaa ibaadiya qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim ndekete ñeent fukki fan rekk moo ko dese mu tàmbali def ya gaayee def ñeent fukki fan ya mat suñu borom jël ko yàlla nu yàlla defal mujj gu rafet kon boog moom la suñ bi bind na bu kenn naagul seytaane li fekk àttewuñ jaam ñi ba ne ko demal aljanna kon weeru jihaadul nafs euh, li ma bëgg a wax ñu bari xam na ku bakkanam not day mu bi doon ak moomeelam moomeelu bakkanam bakkan nag fa mu jëme nit ndox amu fa ndax tàng jër yàlla na yàlla musal te jéggal ñu suñu rëcc rëcc yi nga xam ak te defal ñu ba faw ñii moom suñuy bakkan bu ñu demee ci sunu dañ ci fekk yonent bi sallallahu di wax ne yàlla nee na ku bàyyi bakkanam bàyyi bànneexam bàyyi àdduna dëgmal ma lu ab doxam yeex yeex dox bu gaaw lay doon ci bëti nit ñi ndax dama koy gatandu euh, bu defee farata yi ba noppi farata yi nag bokk yi mooy jiitu nit ki na tànn li ko yàlla tànnal teg la muy tànnal boppam lu mu ma gën a jege jege lu ma gën koo jege lu mu ma bëgg bëgg lu ma gën koo bëgg te su ma ko bëggee yàlla nee na su bëggee jàmm bi su jàmm bi dégg yàllaay dégg su yàlla di su jàmbi wax yàllaay wax suy joxe yàllaay joxe suy téye yàlla yàllaa kon boog weeru jihaadu nafs la jànkoonteeg bakkan bu ñu ko jàppee mukk kasaw kasaw kasaw kasaw kese kasaw kasaw luñ cay def na sell nañ ko jaamu yàlla te seereel ko yàlla am na ñu daan wax ci mag ñu jëkk ña mag ñu jëkk ña su ma ko waxee mooy ñu baax ña nee na ñoom jaadu na suñ ko jëmalee woon mooy ndox jëm ci ixlaas lu ñuy def daal moom yàlla rek lañ koy seereel lu ñuy bàyyi yàlla rek lañ koy seereel kon bokk dugg nañ ci weer woo xam ne bii ab jullit tayle na bakkanam tayle ak njabootam tay la alalam tay la ay bokkam loole nag la ko ko jaraloon moo jar gëstu moo jar roy moo jar toppandoo bu dee koy toppandoo yonent bi sallallahu moom la sëñ bu mag bi topp sëriñ sëpp di xeñtu mboor lañu ko yàlla defloo mooy nee teg leen ko seen kanam di ko xool mën naa gën a gaaw ay doxin mën naa gën a gaaw yi jéego waaye ku jaar fam jaaroon noo mën a doxe rek baax na yaa ngi ca yoon wa yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin TQG ànd ak Colorado dellusi na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seet ndox ñu defare ko ci ay anam yu mucc ayib ñu saytu ko ci ay laboratoire ba mu wóor ci qualité ñu doo koy teg ci marché bi yow mi nga xamante ne da ngay tabax dale bu pare utiliser Coloflex su fekkee nga karale itam bu pare jëlal Touflex ndax ay peinture d'étanchéité la yu baax a baax yu wóor te garanti toogaay amatul bu leen di xaar ba nawet bi door ngeen dog di jóg peinture Coloflex Artuflex bu Colorado moo xam nga dër sa terrasse bu pare wala nga carrelé terrasse bu ñu faral di dox ci kawam la wala bu ñu tëbaka dal bu mu ci mënti doon bu ngeen ñëwee TQG dina ñu leen conseiller xelal leen ba seen terrasse dootul seen dal buy seeb ndox dara wóoru ci moo tax TQG ak Colorado ñu indi leen Touflex ak Coloflex des peintures d'étanchéité yu wóoru wóor yooyu peinture disponible nañu ci quincaillerie TQG yëpp ak fépp ci Sénégal TQG ñu ngi cité kër d'Amel extension rond point 26 Parcelles Assainies wala Mbour route nationale ci wetu croisement Saly TQG Touba 28 ci wetu grande mosquée Kër Massar am na TQG ci rond point guy gi route de Jaxaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée bi wala TQG 65 rue Nganandou Diouf TQG 84 rue Nganandou Diouf itam TQG notre force la qualité ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek dab bànneexu client yi digital lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan ko soxla li ci gën a ti mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digital Store améliorez votre quotidien téléphone 33 823 77 87 boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo